waa asalaamaaleykum sant yàlla julliti Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant xaadim rasool sant mag ñu baax ci réew mi yépp di wax sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg ak kilifa diine yi ci réew mi yépp di leen nuyu yéen waa senegal yépp di leen nuyu di leen jël di leen jël témoin nag ci diggante Cheikh Yérim Seck ak Karim Meïssa Wade ak diaspora bi ak àddina yépp yépp yépp yépp Cheikh Yérim Seck saa yu fu mu toogee mi ngi jàbbali si Ablaye Wade mi ngi sosol Ablaye Wade président Ablaye Wade di sosol Karim Meïssa Wade te ñoom ñaar nag du duñu benn ndax kari may sa wadd nag ay mbokki journaliste Cheikh Yérim ñoo ni musuñoo gis Karim Wade ci auberge yi gis Karim ak jigéen musuñu koo gis grand théâtre musuñu koo gis làmb ja musuñu koo gis ca dansin ba musuñu koo gis fenn bañ nañ sax ba li ko Youssou Ndour meree mooy Bercy ba mu ko tudde woon moom ko taluma ay Bercy Karim Wade liggéey la tal Sénégal la tal Cheikh Yérim coronavirus bi mu ñëwee Sénégal Karim Wade moo yónnee ay test yoo xam ne nii moo tax waa Sénégal xam nu ñuy faje test bi dañ daan téye nit ay weer ak nàngam defal la test bi ñu la ko defalee ñu ni dangay toog fukki fan ak ñeent ñu soog a xom ba xam feebar bi dal na la wala dalu la Karim Wade moo indi euh, test yoo xam ni 24 heures ci bis bi ñu xam xam feebar bi dal la wala dalu la Abdou Karim Meïssa Wade moom nga xam ne muy président Abdou Karim Abdou Karim Meïssa Wade moom moo tax feebar bi jeex fii ci dëkk bi kooku moom ay boroomi procès la deful dara euh, détournement dernier public fenn kenn bettu koo jigéen kenn bettu ko ci auberge yow ñaata yoon nga dugg kaso Cheikh Yérim loo dugal kaso sa ñaari yoon kaso yépp yow Cheikh bu doon Sénégal dëkk bu am yoon la yow dootoo waxati dañ lay sànni xeer wala dañ lay dóor ba nga sedd guyu ndax li nga def lislaam da koo bañ te yow nee nga sax altine dangay woon yow Cheikh Yérim benn bi dugg nga kaso ah nga yor sa jabar yor sa lépp yor sa njaboot la dugal kaso loo xam ne ni yow wax sax waratoo koo def wax sax da waratoo koo def ñu bett laa xale bu ndaw obars fii la ñu jëlaat barki démb bi ñu la dugalaatee kaso benn xale bu jigéen nee nañu yow yaa ko doon fayal appartement détournement de euh, mineur détournement de mineur yow war ngay wax sax kenn di la déglu ba foo toll nga siiñ Ablaye Wade siiñ Abdou Karim sa wadd siiñ leen fang ñoom nag dañoo am palmarès ba rafet ngeen wax ko ak ngeen bañ ko àddina yépp kilifa diina yi kilifa aada yi jàngu bi ñëpp a naw Abdou Karim Meïssa Wade ñëpp a naw Ablaye Wade Abdou Karim Meïssa Wade nekk ko yaru am xam-xam xam-xam bi mu am nag mu yéene ko senegal baayam yor réew bi mu waroon di fo waroon di noos toll woon ci te du ko def bu 31 desembre jotoon mu waroon a costinu dugg ci danse ni dugg feneen ak feneen ànd ak xale jigéen mais defu ko ci jàkk yi lay dem ci borom sandwich yi lay dem ci bitig yi lay dem vidéo yaa ngi fi nekk ci hôpital yi di seeti ñu feebar dugg ci kër inondation yi di ko def yow Cheikh Yérim lan lañ la gis loo investir loo defal Sénégal mas nañ laa gis ci benn néew doole mas nañ laa gis ngay dimbali kenn mës nañ laa gis dara dara loo def Sénégal amuloo Sénégal benn njariñ lu dul topp rajo yeeg télé yi di wax di wax di wax di wax di dugg kasoog te yow bu doon am nga lu mat gàcce sax ñaayu gàcce yow Cheikh Yérim sekk am nga ko ba même bu la lislaam mayoon sax ngay wax sax yow waroon nga di man de ñaari yoon li ma dal yépp dama yaru njaboot yor soxna yi bokk ah man rus naa ti di wax yow wax sax moo la waratul yow Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck Karim Wade du sa moroom nawloowu la Karim Wade nawloowu la Karim Wade jomb naa def yenn yi jomb naa def détournement kii euh, di détourner ay mineur Karim Wade jomb naa dem ci ay auberge ñu bett ko fa muy muy yàq ay ndaw bañ ciy dugg kaso Karim Meïssa Wade jomb na loolu Karim Meïssa Wade dafa am jomb-jomb Karim Meïssa Wade palmarèsam dafa rafet liggéey dafa rafet nga naan Ablaye Wade daa demoon mm, signé ji ci euh, Alpha Condé moo tax mu noppi yéen ñi fi teg Macky Sall lu leen tee wax du yéen a fi nekkoon yéen journaliste yi di mbapp mbapp di wax ñu mel na yéen ngeen nekk place de l'Obélisque di xam ba gale yi xale yi di ruux xale yi naan dëkk baa ngi tàkk lu leen tee wax yéen journaliste yi ni ngeen defoon Ablaye Wade nit ñi ngi doon liggéey di gis seen bopp ci Sénégal yi ci Sénégal nit ñi di am xaalis agressé jóge fi lépp jóge fi ndóol jóge fi ñàkk jóge fi luyaas baa ngi nit ñaa ngi génnee nit ñi fu ñu toll nit ñi amatuñu lu ñu fay luyaas amatuñu lu ñu dundee amatuñu lu ñu lekk ah waxu leen ci loolu yéen journaliste su ngeen xëy rek yéen ngi ci PDS rek da nga ko PDS PDS nag munu leen ci dara parti démocratique sénégalais ah, borom dafa liggéey loo xam ne suñu borom fay ko mu nekk ci xolu Sénégal yi tey la pedes gën a dund tey la PDS di gën a dox Abdou Karim Meïssa Wade bu neexee suñu borom te yàlla dinañ ko may yàlla lañ koy dékku ndax munu leen ci tus dina nekk ci xolu askan wi dina leen jiite fii ci Sénégal bu ngeen bañee mu jiite leen gàddaay leen ngeen dem Mali wala ngeen dem Gambie wala ngeen dem beneen réew te xam ne yéen xaju leen beneen réew journaliste yu mel na yow Cheikh sekk Seck Cheikh Yérim Seck régleel sa bopp yow wax yow wax waratu ci Sénégal sa palmarès fi nga jaar ak li nga def yépp ak ñaari yoon yi la dugg kaso man de bu sekk man su ma bokkoon ak yow sekk di ma bokk ak yow sax dafa ëpp man su ma mënoon a gedd sama sant sant neneen ndax yow sekk ji sax dafa ëpp su ma bokkoon ak yow tey dootuma génn su may génn sax damay muuru bañ nit ñi gis ma ndax am lu day gàcce nag ndax ñagu ñayu gàcce wi nga yanu nag kon su ma bokkoon ak yow tey ñayu gàcce woowu dootuma génn te dootuma taxawaalooti Karim Wade nag macha allah ndikku Coro Sarr Mané Coro Sarr alkaali ma Samba kooku boolewul daraa ki wax bi bàyyam yore réew mi la doon dem di indi ay financement indi ay procès indi Védem prolongé indi hôpital dalal jàmm indi Devoir Touba indi gros indi yeneen ak yeneen indil bàyyam ay financement te dara du ci bor réew yépp di ko xëccoo ndax xam-xamam nag waaye mu ni sama xam-xam man Sénégal laa koy jariñ Sénégal laa koy yóbbul li muy def ci Sénégal mi ngi ci kër diine yi di ci gàmmu yeeg màggali ku feebar mu seeti ku am dëj mu dem jaale ji di massawu ji nit ñi yéen gisu leen dara ma ni coronavirus bii dugg Sénégal wax leen ku ci def dara du benn opposition bu ci def dara du yéen Cheikh sekk Seck yéen journaliste Karim Meïssa Wade dafa mu nekk ca duwaa mooy liggéey xaalisam yónnee ay test yónnee ay test joxe ko ñu ci fay nit ñi ba tey nit ñi wér waaye dañ leen daan quarantaine ci hôtel ñu fay def ay weer te kenn du leen xool di fa def ay ñaar fukki fan kenn du leen xool waa di indi test yoo xam ne dangay xool tey xam ba xam Karim Meïssa Wade kii Karim Meïssa Wade indi test yoo xam ni nii dangay xool ba xam ñii ci réew mi ba xam ku ci am corona ak ku ci amul corona ñu xool la soo amul ñu ne la demal sa yoon soo amee ñu tëye la faj la ci nga dem ndax Karim Meïssa Wade nag moo indi solution boobu kari may sa Wade mooy solution ci Sénégal Karim sa Wade mooy doktooru Sénégal Karim Meïssa Wade moo xam fii metti ci Sénégal mu ñu koy fajal Karim Meïssa Wade di ngeen ko may jàmm yal na ko yàlla musal ci seen cat yi yal na ko yàlla aar ci yéen yal na ko yàlla làq fa làq egg ndax sii ngeen ko fang rek te ni du ngeen ko yàbbi war ngeen Karim Meïssa Wade di ngeen ko yàbbi am ngeen lu ngeen wax journaliste yu mel ne yéen réew maa ngi ni ndóol mett nit ñaa ngi nii ci ndox mi nit ñi bu ñu añee duñu reer nit ñi bu ñu xëyee ñu ndékki seen doom yi jàngatul justice amatul hôpital bu baax amatul dara lu baax amatul ngeen siiñ Karim Meïssa Wade rek yàbbi leen Karim Meïssa Wade talu leen talu leen te yàllaa leen di àtteeg moom nag ndax ba ngeen ko signé ba léegi yéen a ngi torox ay musiba di leen dal ay viole ay xale ay ñu bett laa xale ci auberge yooyu rek moo leen di dal yooyu rek ak jël xale di ko wutal ay appartement Karim sa Karim de Wade gàcce ngaalaamaam moom du fekk doomi jàmbur de mu di ko wutal appartement day jël loxoom koy dugal ko ci Sénégal ci sante bi ba santé bi xam ne dugal na ci loxoom jël ndool gi dugal ci dugal ci loxoom ba xam ne dugal la ci loxoom dafa nekk ko am yërmande nekk ku laabir su ko neexoon di wax di bind na yéen mais dafa xam ni wax doxalul Sénégal liggéey mooy doxal Sénégal mu fas yéene liggéey fa mu nekk di indi di ko yónnee fii ci Sénégal kon Cheikh Yérim Seck noppil noppee la war wax waratu ci Sénégal ñëpp a war a wax ba mu des Cheikh Yérim Seck partagé leen ma ko Facebook internet bi fépp na fa dem ndax Cheikh Yérim mii li mu nekk dafa ëpp. ca Seex Irim bu xoolaatoon boppam xool fi mu jaar barki de matagul ñaari weer doom ñu ne ab xale bu jigéen la daan transféré xaalis jëlal ko appartement ba mu naan dama koo yërëm rek joxoon jëlaloon ko appartement mais sama dara du sama nangam nekk fay mii te loolu mustadal Karim Wade mu war a xool boppam Seex Irim Seck def nga kaso ñaata at ñaata at nga fa def te ni dama daan woor sax altine sa woor boobu lu muy jariñ woor ba pare def lu naqari suñu borom ba mu lay dugal Karim kaso Karim Meïssa Wade nag dañ ko dañ koo tooñ dugal ko kaso ko ko kaso tooñ ko génnee ko réew mi mu ànd xolu muñ xolu ngor néewul hu néewul ha néewul pavillon spécial néewul liberté provisoire néewul dara yow nag xeex nga fa def nga fa lu ne ñaan nga liberté provisoire wonku nga nee nga dangaa feebar lu ne gaññi nga fa def nga fa lépp saalit nga te Karim sa Wade dugg na fa ci jom ak fulla ci biir kaso ba génn ci jom ak fulla ci biir kaso bi xam ne dañ koo tooñ dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj looloo tax Karim Meïssa Wade génn ca kaso ba waaye yow nag moom deel wax rek ndax yow moom waxala dese deel yombe rek di wax rek di wax rek di wax Karim Meïssa Wade nag liggéey la bëgg liggéeyal Sénégal jërë ngeen jëf yéen waa Sénégal Cheikh Yérim Seck daal la ngoogu du nawle kenn nawloowu ko nay wax rek